برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان امتنان في وفاة السيد ابن أحمد عثمان بقلم الشيخ الهادي ابن السيد lii daal niiri yërmande la ak i xéewal noonu la tuddee kalima bi unwaan boobu la ko jox ci génn àdduna ak sayid ibnu ahmada usmaan bi maanaa dafa jiital ismul walid bi mujje ismul walad bi usmaan ibnu muy sëñ usmaan njaay doomu maam ahmadu sekk njaay بقلم الشيخ الهادي ابن سيد كوكو علم لموم دخصة سيدي مولود فالك كنبو علي تعزية في وفاة السيد عثمان نجاي رضي الله عنه لي نجال كي جنة أدناك سنگ بدي شيخ عثمان نجاي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لولو جملة جلير تدو يا الله جل تين تبي أكين يوم أتي صحابا أما بعد لولو يتا مقدمة نهال كلمة بي فهذا ما جمعه السيد الأديب الماجد الأريب loolu yëpp ay nuut la yu ñaal sang boobu lii mooy li nga xam ne dajale na ko sang li nga xam ne ku am teggin la mbaa ku xam fànnu ëdëb la ñaar yëpp dajana ci moom almaajidu di aji tedd al aribu di aji xellu aji ñaw al aarifu billahi al alfaani fi mahabbati mawlah di aji xam yàlla ju jeex ci sopp boroomam أدام الله علاه وعزه وارتقاه يالنا يالا سخال أكويم أكترانغام أكوك ييغم تبيب يالا وهي العارف لا وهي الغارف أنكور من الحضرة الختمية والكتمية أجي تانك أجي تانك لا كي تي بيغا خامني موي بيو ختمية أك كتمية المتحلي بالأسرار الربانية di aji woddoo ay mbóot yoo xam ne ko ju borom bi la subhanahu wa taala sayidil ha assayidul haadi bil xaali wal qaal xam naa ne taara ji baax na foofu taara ji moo gën a rafet idaafa bi assayidul haadi bil xaali wal qaal mooy sang bi jubalaate di gindiwaate ci xaalam ak ci waxam koo koy kan alhaadi ibnu sayid yi mawlud vaal haadi ibnu sayid sayid moomu nag mouhamadul amin moo ko jur mouhamadul amin cheikh cheikh sayidi mawlud fall waaye comme sayidi mawlud fall moo siiw rek ñu daal di koy idaafa waaye ñaar dox na diggante haadi ak Seydi Mawlud Fall baayam ñetteel leen aslaha allahu lana wa lahu lxaala walmaal yal na yàlla ñe yéwénal ñeexal ñu ak ak ñeexal ko moom ñeexal ñu te ñeexal ko maanaam mbir mi nga xam ne mooy mi teew ak mbir ma nga xam ne fa la ñu jëm alxaalu mooy li teew nii almaalu nag mooy la nga xam ne teewagul waaye te nga jëm في مشهد وفاة السيد العالم العامل وابو بوكو نانكو جيندي تي فاتو سانغ بيغا خامني بروم خام خام لا بوي جيفي خام خامم جيندي الواو العلامه الكامل با تا بوبو تا مبالغه العلامه تكو بري خام خام لول الكامل تدي اجي مات ci meloy góor yàlla yi al aarifi billahi taala alchahidi fi mahabbatihi di aji xam yàlla joo xam dafa shahid ci bëgg yàlla dara reyu ko lu dul bëgg yàlla ci bëgg yàlla la shahid dafa lab ci yàlla kookoy kan usmaan bun ahmad al tijaani radiallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi amin نون لكم مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه دان تودي عثمان بن أحمد التجاني وسماه تودينا نك كلمة بوبولة معنى أدي بند جموي سيد الهادي صحائب الرحمة والامتنان نير يرمني أك قيول في وفاة السيد ابن أحمد عثمان bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyihi alkarim léegi nag lii la sayid alhaadi bind fii la commencé mhm. lii yëpp benn tarjama la woon mhm. ba dajaloo mbooloo mu bëri mhm. kulluhum baakin li shiddati musibatihi mu ne kenn ku nekk ci ñoom mu ngay jooy ngir taduk musibam sëriñ Ousmane Ndiaye dem gi mu dem nekk gi mu nekk musiba ولما بلغت الساعة العاشرة تخمينا من تقريبا لني وقت من بيغا قمنتني وقت ديزر جتنا أبا باردال أفاض الله علينا وأكرمنا من فيوضات خزائنه ومواهبه التي يعطيها لمن لم يكن أهلا لها wa ma dalika illa min barakati cheikhina mu ne biñ demee daal ba daanaka dix heures jot yàlla bëbbal na ci ñun moom seydi Haadi boppam lay wax mu ne yàlla teral na ko ci bëbbali magasinam yeeg mayam yi nga xam ne moom yàlla dana ko may ku ku ko eyoowut mu ne waaye amuyut loolu lu dul ci barke sunu sëriñ bi muy Maulana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Ñas mu baax mi radiyallahu anhu lan mooy faydu boobu muy wax ak karaama boobu bi an amarana cheikhu bi duxuli ali nee na teraanga juré ji ko yàlla defal te yeyowu ko waaye mu ngi ko am ci barke baay mooy ne baay digal ko ne ko yow haadi ay wo duggal ci sëñ Ousmane Ndiaye demal nga fekk ko fi mu tëdd ومحمد عبد الله بن المرابط وسيد محمد بن الرباني وسيد محمد بن عبد الله بن الحاج موي محمد عبد الرحمن موي ماجي سيدي الشيخ الشيخ الشيخ محمد المشري دينغا نيوم نينت الشريف يي لا باينه نانيو ديم توبتو سيغ عثمان جاي امرنا الشيخ بالدخول عليه وغسله واو mu nga ataf ca bi duxuli wa xaslihi ak itam nañ ko sang wa tajhizihi nañu ko waajal fa wajadnaahu ala ahsani hayati mu ne ñu fekk sëñ Ousmane Ndiaye bi fanaanee ba bët set dafa mel ni dafa gën a taaru mu ngi ci gën jaarafet ji melo tëraayam bu jekk boobu dafa mel ni rek kuy nelaw waaye melul ni sax koo xam ne dafa faatu wa tabarrakna minhu neena na ñu barkelu ci mom ta xolal ki wax li setup sayyidi Mawlud Fall mi nga xamne de nga silsila tariqati tijaan yeb ci mom la jaar setam moy wax li neena ñu barkelu ci seigne Ousmane jaay wa qabbalna bayna aynayhi ñu dal di fon ci digante ñaari beutam yu tedd iqtidaan bima faala abu bakrin linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ngir roy la Seydina Abubakrin defoon yonentu yàlla Muhammad ba mu jógee ca sunxu ak aaliya fekk yonentu yàlla Muhammad génn na àdduna ñu ngi ko daal di muure mbàjju mu dal di muri kanamu yonentu yàlla Muhammad foon ko ci diggante ñaari bëtam yi ne ko tibta hayyan wa mayitan yow yonentu yàlla Muhammad tee nga ba ngay dund tee nga it ba nga faatoo nee na sëñ Ousmane Ndiaye ñu def ko noonu radiyallahu anhu fasdaxamati naasu alayna nee na nit ñi dal di raj-rajloo ci ñun li tabarruki minhu nit ñi nag buuxante kenn ku ne ne bëgg ngaa ñëw ba ziyaare sëñ Ousmane Ndiaye fi mu tëdd rijaalan wa nisaan muy góor muy jigéen fa sharana fi gaslihi nee na ñu tàmbali nag di ko sang mm-hmm. wa faalna lahu ahsana kayfiyatin mm-hmm. min al xusli mm-hmm. wa takfiini mu ne ñu defal ku gën jaa rafeti anam dégg ci nag ci ni ñuy sangee dégg ab jullit ak nuñ koy dégg sange sànge falamma sharaana fil xasli bi ñu tàmbalee nag di ko sang rek axraja cheikhu al mushafa linnaasi la Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu génne kaamilu alquran jox ko nit ñi wa amarahum bi xatmihi mu digal leen nañu xatmu dégg nga kaamil bi wa waafaqa alfaraagu minhu alfaraaga min alxasli min alxusli mu ne mot pare ga ñuy pare ci kaamil bi mu ngi tolloog pare ga ñuy pare ci sang bi ñom ñi sang dañu égal sang bi rek fekk ñu doon jàng alquran bi égalé nañ kamil wa amarana sheikh bi ikhrajih mu ne serigne bi dal di ñuy digal ne nañ ko génne wa akhrajnahu ñu dal di koy génne wa saarat nas tazdahimu alayhi wa tabki alayhi kabiruhum wa saghiruhum mu ne nit ñi nak mujju di rajaay radiyallahu anhu di ko joy seen mag ak seen ndaw nak ken desut حتى أن الشيخ من بتي سرين بمولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يسر رضي الله عنه بكى بكاء شديدا جوينا جوي تب وأما ما وقع للسيد أبي بكر والسيد علي فلا يعبر عنه إنما هو موت فقط من واي مام سرين بينس أك سيد علي سيسم نيوم يار نيوم للين دال تي معنا يمون تي جوي مي نيوم دانيو ديرك ñoom moom deewoon nañu qultu Seydil Haadi mooy wax mu ne damane ne nag wa hada al bukaau waqaa mu ngi def istidraak mu ne jooy yi nga xam ne tàbbi na nag laysa bukaan min adami taslimi al amri lillahi tabaraka wa taala nekkut jooy yoo xam ne dafa am ngir ñàkk ommatu ñeexal mbirum yàlla tabaraka wa kama yazunnu baadul jahalati alladina laa yaalamuuna xaqiqata al amri comme na mu koy jortee lenn ki way réer yi nga xam ne xamuñu dëggi-dëggi mbir yi innama hiya waaye naka jooy yooyee sadmatun ilahiyatun dégg nga congu congu la guy ko jug yàlla rek aw xët rek woo xam ne yàlla moo xëy ko ñëpp dégg nga yàlla nag dégg nga kum dal ci sa kaw mhm. faw nga rëg mhm. li suquuti ruknin mhm. min arkaani cheikh ngir rotuk ab ponk ci ponki sëriñ bi ñeenti ponk yi nga xam ne ñoo téye woon mbaaram mi bu doon mbiram mi am mbaar la benn ponk bi moo daanu kon nag ponk bu daanoo ci mbaar coow dana bëri wa huwa min aazami al ibadati wa huwa jooy yooyu من أعظم العبادة دفا بوك تي لي غنا ماغ تي جامو يالا لانه فعل في الله ومن الله والى الله ما ناخ جو يويو كات دنجكو ديف تي يالا مو بايكو سي يالا جيم تي يالا ولذلك قال الشيخ مجيبا لمحمد المشري في قوله موتاخ سيرين بي مولانا شيخ ابراهيم نياس تونتونا شيخ محمد المشري كي واخام جي مشري مو واخ لي amma baadu mhm. faqad waqaa lana dahshun azimun mhm. gannaaw gi mhm. sëriñ bi na nga yëg ne tàbbi na ñu tiitaange ju màgg wala jaaxle ju rëy min wafaati axiina al akbari wal alami al ashhari ngir faatu sunu mbokk mu mag mi muy sunu magum taalibe waaye di xamtu ju siiw walla xamtu ju gën a siiw sayidna usman njaay radiallahu anhu walaw laa mushaahadatuna li talaatikum bu fekkutoon ne seede nañu seen jëmm ju tedd ji di fenk ci suñ biir wa ma ayyattumuna bihi ak ni ngeen ñu dëgërale bañ mën a muñ la mit naa awwalal waqti kon ñun ñëpp danañ dee ca njaal benni waxtu wa kon sëñ Ousmane Ndiaye du ñu jiitu lakin lamma raayna ma dahara alaykum ishtadda al amru alayna wa daqat alayna al ardu bima xubat mu ne waaye bañ gisee li feeñ ci yéen xaal bi ngeen nekkee ci jooyu tar yooyu ngeen di jooy mbir ma nag ca la tar ci ñun suuf si li muy yaatu yaatu mu dal di xat ci ñun mhm. wa nasina kulla cheyin ñu fàtte lépp mhm. wa xib naa fi cheyin mhm. laa nu abbiru anhu ñu faddu ci mbir moo xam ne mënuñu ko leeral illa annahu ashaddu wa azamu min kulli cheyin lu ne nag mbir moomu moo gën a tat te moo gën a màgg lépp lëf ونرجو منكم أن تداركونا بلطفكم ورحمتكم والسلام نيجي جرتو تيين نك دي ياكار تيين يو سيرين ngeen dabaatal ñu ci seenug ñewent ak seen yërmande fa fi intisaafi leyli الثالثة من ربيع الثاني di guddik dimaas di ñetti fan ci weeru rabici saani aam alf wa atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent guddik dimaas googu ñetti fan ci rakku gàmmu 1364 ci guddi googu tuwafiya axuuna ca la faatu sunu mbokk ma وسيدنا دي سنو سنغبا كان السيد عثمان بن احمد التجاني موي عثمان جاي دوم مام احمد سك جاي رضي الله عنهما ثم اخبر الشيخ بذلك توب نك ني دالدي خبار لورو سيرن بي موي مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نياس رضي الله عنه فاخبر به الحاج محمد بن أب والقوم معه مولانا شيخ إبراهيم خباركو حاج محمد والأد والأب كينك معنا ستي بدله ak gaa yi nekkoon ak moom fa xaraja cheikhu ilayhi sarian raajilan mu ne maulana cheikh ibrahim radiallahu anhu bañ ko ko waxee rek ca la génn gaaw jëm ci sëñ Ousmane Ndiaye di dox ak tànkam lu muy dem fa sëñ usmaan jaay nekk dégg nga tànkam la doxe wa maahu Muhammad ibnu Abba dégg nga Sidi Muhammad bun Abba mu ngi ànd ak moom ndax Sidi Muhammad bun Abba mii dafa bokk ci saadaat Idaaw Ali yi nga xam ne ndax moom booba mooy xalifa bëddi ibnu Sidina comme ni nga xamné mohammed Saïd mom moy khalifa Cheikh mohammed al hafiz ñom ñaar ñi tuddu na len ci kashf al ilbas ila dar al tabib mu jëm na kër docteur l'hôpital bi lay wax wa arsala Mouhamad abna rabbaani ila alxaaji Mouhamad Zeynab mu daal di yebal Mouhamadu rabbaani mooy sëriñ daara bi fi doon jàngale alquran mu dem ci الشيخ الحاج محمد زينب ابن الحاج عبد الله رضي الله عنهما وارسل محمد ابن الحاج الى عبد الرحمن شام مودال دي يوني محمد بن الحاج مودم عبد الرحمن شام واجتمع الكل عند دار الطبيب نينا نيوم نيب ني داجي كير دكتور وحملوه في ذلك الوقت الى دار الشيخ التي في كولخ ñu daldi koy yenu ca waxtu woowa mhm. daldi di koy yóbbu kër Maulana Cheikh Ibrahim Niass ga ca Kawlax mhm. walamma jaaluuhu fi makaanin minha mhm. bañ ko defee ci benn bërëb ca kër ga am na ñu wax ne ci lalu maam Astou Sarr ko tëral ba pare maam Astou Sarr jël cuuraay taalal ko waaye kii moom daf ne rek dafa ibhaamal bërëb bi ne fii makaanin minha qaala cheikhu mawlaana cheikh ibrahim dal di wax ne radiallahu anhu innahu laa yaclamu ala wajhi alardi aclama billahi wala bi rasulihi wala bi cheikhi minhu mu ne moom baay radiallahu anhu xamul ci kaw suuf ku gën a xam yàlla mbaa ku gën a xam yonent bi mbaa ku gën a xam Maulana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci Serigne Ousmane Ndiaye mii borom turaay bu njëkk boobu summa amara cheikhu bi tarkihi ila sabaahi mu ne topp sëriñ bi digle ne nañ ko fa bàyyi ba suba wa arsala ila ahli madina yuxbiruhum ويأمرهم أن يخبروا أهل الآفاق ممن يستحق الإخبار mu dal di yónnee waa Medina di leen xabaar mbir mi mu digal leen it ne nañ ko xabaar waa gox bi gox yi mooy dëkk yi tund wi yëpp rek ci képp koo xam ne yeyoo nañu xabaar ko ko wa mimman ayyana min zalika bokk na ci ñi nga xam ne nag ràññet la na leen ci ñooñu mm-hmm. maanaa tudd na seeni turne nañ leen ko tàgge mm-hmm. waalidahu waaliduhu mm-hmm. ahmadu sekk njaay woyjuram maam ahmad sekk njaay ca njaayankat almustahiru bi salaahi di ku ci ak mbaax wa yakfiihi min dalika doy na ko ci mbaax rek moom maam ahmadou seck njaay annahu kaana walidan li haza sayidi ne moom nekkoon na di wayjuru sang bu màgg bile wa baatati naasu tilka leylata nit ñi daldi fanaan nag ci góogule guddi maa naama minhum ahadun mu ne kenn nelawul ci guddi googu ci waa Mérina ak waa Kaolack wa in kana ndem nekk na budee am na ñu nelawit fa qalilum lu néew la de ñu néew a nelaw walamma sallayna subha min tilka leylati bañ jullee suba nag ci góogule guddi saarat innaasu taati afwajan afwajan la mujj nag nit ñi di ñëw di def ay mbooloy mbooloo وأرسل الشيخ أيضا إلى الحسن الشريف benn kilifa ak marocain la woon gu nekkoon fii ci Kaolack nekkoon wëllëre it sëriñ bi ci jaaliya al maghribiya bi fi nekkoon la mu bàyyi dal di yónnee ci cheikh ci alxasan sharif wa man maahu min al magharibati ak ñi ànd ak moom ci marocain yi na bihi aajilan te nag ñoo koy fekk ci lu gaaw mhm. balaa yàgg rek ñun ñëpp it danañ ko fekki mhm. la mu waxoon it am na ñoom ñu doon wax li yëpp tey nekkatuñ ci mhm. narjullaha taala an yuwaffiqanaa limaa waffaqahu ñu ngi jortu ci yàlla mu dëppale ko ñaxal la nga xam ne dëppale na ko ko xataa yaatina ma ataahu ba ko dikkee dikkal ñu kàddu yi la Mawlaana Cheikh Ibrahima wax ne wassalaam ثم تكلم الحاج محمد زينب فمجده مام الحاج محمد زينب ابن الشيخ الحاج عبد الله مومتا مودال دي واخ دال ديكاي ماغال لول واثنى عليه متغكو بما لا يعلمه الا البليغ النبي كي لو خامني ديت مو ديكو خام لودول كو جوتال كو ايو وقال مثل ما قال الخليفه مو وخيتام كوم لا مام خليفه واخون تي معنى فونك جيم فونك باي اك ليپلو aju ci maam alaaji abdoulaye wala képp ku taq ci maam alaaji abdoulaye mhm. summa takallama saydna abou bi kalaamin ajibin mhm. mu ne saydna abou maam sëriñ mbay mhm. mu daal wax wax ju yéeme wa fiihi bi kulli cheyin garib mu indi ci mépp mbir mu tumuranke wa adhashahu waaye nag mu daldi koy maanaa gëtën an axirihi ca mujjantali waxam ja an naxiibu jooy maam Serigne Bay eggalewut kàddoom ndax ay jooy wa waqaa wa waqaa dajjatun azima mu ne nag coow lu bëri dal di am inda xutbatihi ci xutbay maam Serigne Bay mu nekkee di xutba yuuxu yi di jolli bi muy wax moom ba jooy rek ñëpp ànd jooy min al wa siyaax ñii di jooy ñii di yuuxu wa za illa li ajli في عالم الأشباح والحمد لله على وجدانه بالأرواح من وينك تولو در ورا لكل دور غير نياك غينكو نياك تي عالم يرام ييغا خامني تي ندوتو غيس جي تي حال بام نيكي وون واي نيغي سانت يالا باتاي موغي في نيك تي عالم الارواح وقال مثل ما قال الخليفه مؤمن مو وخكم الامام خليفه وخ ثم تكلم الحاج محمد بن اب بخطبه عجيبه حاج محمد بن ابد بدل واخ خطب بو اول ما قال جال بينو لم واخ داني اعلموا ان هذا اليوم يوم عيد عظيم عندنا منتينك نك بو سفيات بو لان هذا الرجل نخواجله لا يشك احد في ولايته ولا في معرفته ولا في علمه ولا في صلاحه ولا في خصوصيته ما واجي di Serigne Ousmane Ndiaye ken du sikki sak ci wilaya mba xam yàlla mba xam xam zahira mba ci mba xam mba ci jagle wa inna adna maratibi man xadara janazatahu alxufraan moy ta nak gën ja doya di ci martaba yi ku tewe janazam martaba bi gëna tuti ci martaba bi nga am rek modi yàlla jéggal na amna yenen yu ci aju yoo xam ne daf ko xasaf def ko ixtisaar moo tax mu def foofu niqaat yooyu wal xaasilu anna mawta al ulamai salmatun fi diin mu ne li am daal mooy deewug borom xam-xam yi dégg nga aw jaal la ci ciiñum diine wa axraa dégg nga al ulamai billah rawante naag ñi xam yàlla mm-hmm. wa man lam yabki alayhi mm-hmm. fa huwa jamaadul jamaad mm-hmm. mu ne ku jooyul sëñ Ousmane Ndiaye mii rek yaa gën a wow li wow waaw fa innahu qalilun fi xaqihi mu ne jooy gaa lu tuuti la ci àq sëñ Ousmane Ndiaye jooy lu tuuti la ci àqam an bakat alayhi samaau wal ardu ndax luy mbir ta mbir suuf jooy na ko mm-hmm. asamaan jooy na ko mm-hmm. wa shamsu wal qamar mm-hmm. wan nujuumu wa shajar jant baa ngi koy jooy biddiw ak weer wi ak biddiw yi ak garab yi wa dawaabu ak di daaba yi wa kathirun min annaas boobu nag da nga fa déggee shamsu bi mooy baay qamar bi dégg mooy dooy baayam yu baax yooyu le nujuum mm-hmm. mm-hmm. yi mm-hmm. mooy borom xam-xami taalibe foofu daal mën nga faa def def sa ay kii wa baka alayhi kaana yabussuhu fi qulubi mu ne xam bi mu doon sotti ci dënni nit mu ngi koy jooy wa bakat alayhi tarbiyatuhu allati kaana yurabbi biha tarbiya bi mu daan tarbiya nit ñi mu ngi koy jooy wa baka alayhi kullu mutaharrikin wa saakinin lépp luy yëngu ak mm-hmm. lépp luy dal mm-hmm. mu koy jooy mm-hmm. wala ma tamatil xutabu wa waqaa cheyun ajib mu ne bi xutba yi matee mbir mu yéeme tabbi wa tamanna kullu ahadin min alxaadirina an yakuna huwa almayit mu ne mébét ku teewe dëj boobule mébét nga ne mhm. yellante kon turaay bii sëñ Ousmane Ndiaye tëdd mhm. yow yaa tëdd mhm. li xusni ma samiahu mawlaana cheikh ibrahim radiallahu taala anu wa nassu jawaabi cheikh yaxu tontub sëriñ bi mooy alhamdulillah maa xazinna alayhi wala alaykum mu ne ñu ngi sant yàlla jàquñu ci demuk sëñ Ousmane Ndiaye mbaa ñu jàq ci yéen innama huwa kama qaala sallallahu alayhi wa sallam moom lépp lu mu def rek mu ngi ko tënk ci sunna comme naka la ko yonent waxee rek fala aynu tadmau ba doomam ibrahima faatoo ronkoñam ya di tuuru waxoon na kàddu yi mu ngi ci sixaax yi fal aynu tadmau mu bët yi mu ngi tuur ay ronkoñ bët yaa ngi ronkoñu waaye nag wal qalbu xol ba moom hmm. yaxshau mu ngay torox lu ñexel yàlla hmm. maanaam mu ngay gërëm dogalu yàlla hmm. waaye nag duñ caalit mukk wala naqulu déet ñuy wax illa ma yurdi rabba ndare lay gërëmloo borom bi duñ génn ci suñ làmmeñ benn baatu baatu caalit waaye nag ronkoñ yi faaw mu tuuru xol bi itam faaw mu torox wa azikum maa ngi leen di jaale wala tajiduuna illa xayran waaye maa ngi leen di xamal ne déet ngeen di am dara aw yiw wasalaam ibrahim lii la mawlaana cheikh ibrahim tontu saydina mouhamadul mushri wa ma zilna fi dalika dëhëshi dañu dañuñu nag ñu wowule tiis wala joojule njàqare ak dëgmu guñ dëgmu xata amarana cheikhu bi xamlihi ila zawiyati walidina alxaaji abdillah ñu nekk ci njàqare googu ak mm-hmm. tiis woowu mm-hmm. ba sëriñ bi digal ñu ne léegi nag mm-hmm. nañu yenu sëñ Ousmane Ndiaye yóbbu ko ca zaawiya sunu wayjur ñoom wayjur lañ koy wax waaye ñun maam lañ koy wax ci zaawiya sunu maam alxaaji Abdullahi Ñas radiyallahu anhu ca lew na fa xame fa xamal naahu ñu daal di koy yenu nag jëme ko ca zaawiya wannaasu tasdaximu wa tabki nit ñi di raj-raj loo di jooy wa talaqaana alxaaji muhammad mu ne mu daal ñuy gàttandu maam xalifa ñas wa saara yuazi cheikha muy jaale sëriñ bi mawlaana cheikh ibrahim di jaale rakkam ji ci taalibeem bu foor bii nga xam ne ñàkk na ko wala maa wasalnaa ila zawiyati bi ñu mhm. yeggee ca zawiya ba mhm. wa jacalnaahu amaama annaasi ñu def ko ci kanami nit ñi mhm. wajtamaa min annaasi adadun laa yaclamuhu illa jaamicuhu mu ne mu daal daje ci nit ñi ab lim boo xam ne kenn xamut lim ba ndaree ka ko ka fa dajale te mooy yàlla maanaam mbooloo mu bëri na ba ëpp ab shara'u fi khutabi ma'athirihi ñu tàmbali nag di wax ay jeexitam kenn ku nekk def xutbaam fa awalu man takallama alxalifa alxaaji muhammad ki njëkk a wax mooy maam xalifa ñes radiallahu taala anhu wa qaala fihi maa yubhiru alcuqula mu daal di wax ci sëñ Ousmane Ndiaye loo xam ne دافاي نوت خولي ولا ياتي به المعقول والمنقول مونيت نك لو خامن دنج كوي تاك تيم خيل مانتا اندي لا مام خليفه واخ لو ني توخال تي كيت مانتا اندي لا مام خليفه واخ ونص ما قال الخليفه باختصار لينغ كو ياخون ديفا وقص ونص يخب لا واخ نكو الخليفه مام خليفه lam واخ باختصار كي تنكو tënk ko daal maam أن هذا العبد بحر علم لا ساحل له من حملة الشريعة المحمدية من جامو يالا بي تد جيجو خم خم لاغو امو تفس تا موغي بوكو تي نيغا خم ني نيغي ينو الشريعة المحمدية وعارف بالله كقام يالا لا ومحب فان في محبة الله أجي صب لجو جيخ تي صب يالا ومحبة رسوله أك صب ينتم بي صلى الله عليه وسلم وفان في محبة شيخه أجي جيخ لا يتم تي صب سرينيم وحسن الخلق كرافت جيكولا مع كل مخلوق عندك bépp mbindeef mm-hmm. wala siyama mm-hmm. aqaaribi waxantu mm-hmm. waxantumalaak nag jege ñaaley sëriñam mawlaana cheikh ibrahima ñas lañ te bokk ak ñoom maam alxaaji abdullahi ñoom ñëpp mu ngi rafet jikko ak ñoom falaa yalqaa ahadan minhum moom sëñ Ousmane Ndiaye du daje kenn ci njabootug maam alaaji gi te ñuy jege ñaaley sëriñam baay illaa wa jaalahu ayna cheikhihi ndare du ne def na kooku mu jëmmi sëriñam mhm. képp ku bokk ci ñeseen mhm. bokk ci maam alaaji abdullah muy góor muy jigéen mhm. mu ne fu sëñ Ousmane Ndiaye mosa daje ak yow mu ngi lay def yaay jëmmi Maulana Cheikh Ibrahima Niass cër bi muy jox baay moom la lay jox kon gis nga yar bii moo doon yaru baay ci taalibeem yu mag te loolu moo war a nekk ci bépp taalibe wamaa xoola rek wax jure ji wa ma wudiat janazatun baada cheikh alhaaji abdillah azama mawqian fi qulubina minhu mu ne tëraluñu fii ab néew ci zaawiya bii gannaaw sunu baay maam alaaji abdullah dégg nga néew boo xam ne moo gën a màgg dégg nga tabbiwaay ci sunu xol ci néew bi sëñ Ousmane Ndiaye bi bi maanaam gannaaw daal tëraayub maam alaaji Abdoulaye Niass tiis wañ ca amoon amaatuñu tiis wu toll noonu lu dul ci biñ tëralee fii sëñ Ousmane Ndiaye lii maam Khalifa Niass moo ko wax xam nga lii wax ju rëy la summa takallama cheikhu bima laa yaati bihi taabiru wala yaalamuhu illa al alimu al xabiru mu ne gannaaw gi sëriñ bi Maulana Cheikh Ibrahim Niass wax loo xam ne ay leeral mënuñ koo indi kenn du ko xam ndare aji xam ji nga xam ne moo denc kumbata mooy sun borom tabaraka wa taala wa nafsu ma qaala cheikhu yaxub la sëriñ bi wax maanaa mawlaana cheikh ibrahim li mu wax dane bi ixtisaarin ci tënk inni ahmadullah wa ashkuru man baay maa ngi sant yàlla te di ko gërëm wa arda bi qadaihi maa ngi gërëm dogalub yàlla wa aalamu annahu يعلم وانا لا اعلم موي تخمنا ن يالا خمنا واي من قوما داخ موم موي بروم بي مان ماي جام ولا يفعل بعبده المؤمن الا خيرا تخمنا ن يتام يالا ديت موي ديف سي جامم بي گم نري يو لا اشك في ان هذا خير لي ديت ماي سيكي ساكا تي ني لي خيو او يولا وما نيهال مان تاج ابراهيم نيس ولا هو او يولا يتام ونيال سيرن عثمان جاي وللجميع او يولا يتام ونيهال نيب ديمم جي مو ديم سما يولا او يوام لا واي يو نيب لا واشهد انه صالح لكل منصب min al manasibi diiniyati law aasha mhm. min al manasibi diiniyati mhm. mu ne maa ngi seede ne mhm. jaamu yàlla bii di sëñ Ousmane Ndiaye yelloo na bépp daraja ci daraja diine yi bépp rek garaat wala bépp martabab diine boo xam ne cër la bu ñuy joxe sëñ Ousmane Ndiaye yeeyoo law aasha donte guddoon na fan la kaana mimman yasluxu li xamli shariati wa dana bokk ci ñooñu nga xam ne ñu yéwén ngir yenu shariatu ak tariqa wa huwa shaabun nashaa fi taati illah maa sabaqa lahu qat mu ne moom sëñ Ousmane Ndiaye waxambaane la woo xam ne mu ngi sosu ci topp yàlla aw ñaaw téef jiituwul ñaxal ko benn yoon ci dundam gi jaarul ci ak ndaw mm-hmm. amul benn tâche boo xam ne moom lañ koy gàkkale mm-hmm. walakin al umra mm-hmm. lamma qasurat amaaduhu am amdaaduhu mu ne waaye dund gi ba ay jamonoom gàttee tëbbam ya moom yaatu na fanam wi gàtt waaye tëbbam yi nag yaatu na xoolal قصرت آماده اتسعت أمداده وعمره بكل خير وعمره بكل خير من فيصل ندندم جي تي ويب يو موم شيخ عثمان جاي بايا غاي واخ دي من فقط تعلم وعلم جانغنا جانغلي وعمل بما علم مجفل مقام وألف تآليف مفيدة متالف تالف يؤمجري كنا في آخر أيام من عمره مشتغلين بتفسير القرآن للأحباب من نكون ننتي فن يمدي تك دندم نجي سخلوا دفري القرآن دي فري الصبي وهو يجلس قريبا مني من موم سيد عثمان جاي لدان توك كي لما جيجي تي لدان توك وما وقع بصري عليه مدة التفسير غالبا illaa wa raaytu dumuuahu tanxadiru mm-hmm. mu ne sama bët tàbbiwut ci moom mm-hmm. diirub li may jàngale tafsir ci li gën a not mm-hmm. lu dut ne maa ngi gis ronkoñam yaa ngay dotti li may jàngale yépp tafsirul quran sëñ Ousmane Ndiaye ronkoñam yaa ngay tuur wa huwa yukarriru kullama qaraatu lil ixwaan mu ne te mooy toppal lépp lu ma jàngal mbokk yi lépp lu ma jàngal taalibe yi moom sëñ Ousmane Ndiaye moo leen di toppalaat seeni bind wa yuqri u funun al albaqiya te itam maanaa kon maa qaratul ixwaan yaani min tafsir maanaam dars bi may tëral ci tafsirul quran moom moo leen koy toppal te itam yeneen fànn yi des moo koy jàngal taalibe yi wa man tabahtu fi sa'atin min sa'ati al-layli illa wajadtuhu qa'iman yatahajjadu bil qur'an mone ne mosuma eewu ci wenn waxtu ci waxtu guddi lu dul ne al ngi ko fekk mu ngi taxaw di fa alimtu annahu kabirun walhamdulillah ma xam ne moom aji magla, la te ngi sant kabir ad dunya mu'min mu aduna كسب أجي جملة وهو ما طرع له إلا أنه خرج من السجن إلى الراحة من الدرر خود نيال موم ما سيد عثمان جاي لدنة دفق جنة كسر أجدم دي رج رج لو تنين حتى كادت السيارة أن تتكسر من أطو بزخ فيري قونا تج والتلاميذ يذكرون taalibe yi di zikkar walamma wasalna ila al qabri sharif wajadna xalqan mu ne biñ eggee ci xabrom bu tedd biñ ko eh, eh, gasal muy këram ñu fekkaat foofu ñu bëri di xaar ca xabru ba wa man masnuan sanaatan ajibatan ñu daal fekk nag ne xabru bi defar nañ ko defar bu yéeme wa jaalu fihi laxdan ñu daal di koy def ak laatu ala axsani kayfiyatin ci gën jaarafeti kayfiya chaqu la ak laxdu chaqu mooy bi nga xam ne da ngay gas rek mu wàcc laxdu bi nag mooy nga gas ba pare defaat beneen kër ci suuf wa hayau l aawidata wal alata kullan ñu daal di waajal bant yaag jumtukaay yooyu yëpp mhm. yi ànd ak dégg nga ab bàmmeel mhm. wala maa arat naa nuzulahu min as-sayyaarati mhm. biñ bëggee wàcc sëñ Ousmane Ndiaye ci oto bi waqaa alayhi izdihaamun azim tàbbi na ci kawam ba tey raj-raj loogu mag buuxante gu mag ku ne bëgg laal wa akramanillahu taala yàlla teral ma man Seydil bi anni nazaltu fi qabrihi man maa wàcc ci xabroom mhm. maa sayid abubakrin al musanna mhm. maak sëñ Ousmane Ndiaye wa sayid Ibra Fall mhm. ñun ñett ñii ñoo ko jébbal boroomam sëriñ Mbay maam sëriñ Mbay dégg nga maanaa man ak sëriñ Mbay Ñas ak maam Ibra Fall ridwanullahi alayhim jamian wa jaalnaahu fi lqabri ñu def ko ci xabru bi fa waqaa aydan dahshun azim mu daal di tàbbi ba tey ak jaaxle gu mag inda jaalihi fi lqabri wa inda dafnihi fas def ga ca xabru ba ak fas suul ga wala maa waaraynaahu nee na biñ ko suulee tazakkartu maa qaala muhammad ibnu muhamdi fi marsiyatihi li saydi mawlud van ridwanullah alayhim muhammad doomi muhamdi muhamdi mooy bëddi marsiya bu mu defaloon saydi mawlud fall mu naan غادروه تحت الصعيد دفينا نعم ذاك الدفين تحت الصعيد باي نانكو موي كونو سول تيرون باكو سوف اسكي كوكي نيو سول تيرون باك اسكي موم اكا باخ ثم امرنا الشيخ بقراءه عشر من الفاتحه روايه بانغو وعشر من ايه الكرسي وإهداء عشرة من الإخلاص وعشر من صلاة الفاتحة نيان جي باي واخنا ني بيب نيو بون كو ديفال بوكو نا سي فيداو يي گنا وير نيو بون كو ديفال دونت ايو وون نا سفرا يالا دانا كو ماي مباخ مو تخ دوك دوك بي موي دوغ زيار فو نيوي زيارة اي قبر دوك بي nga وارا جانغ فو نيوي زيارة صالح دوك بي nga كو وارا جانغ dégg nga mhm. mu ne bay digal ñu mhm. ñu jàng fukki per ci fatihatul kitab mhm. fukki per ci ayatul kursi fukki per ak benn ci ixlaas ak fukki per salaatul fatih gis nga boo boolee lépp lim bi mu lay jox ñeent fukk ak benn quarante et un wa amarana bidduaa mu digal ñu ne nañu ko ñaanal wa daa huwa lahu moom baay ci boppam mu ñaanal sëñ Ousmane Ndiaye wali man xadara mu ñaanal képp ku teew wali ammatil muslimin mu ñaanal mboolem jullit ñi wa taahab naa li rujuci ñu daal di waaj nag pour delluwaat ca kër ya fa rakiba albaadu fi sayyaarati wa rajaca albaaquuna mutarajjilina qaasidina daara cheikhi allati fi kawlax dégg nga lenn ki nit ñi yéeg ci oto bi mhm. dégg nga ñi ci des nag dox ak seen tànk mhm. waaye ñëpp ñu ngi jëm kër Maulana Cheikh Ibrahima Niass ga ca kaw la mhm. fajtamaa indahul kullu ñëpp daja fa moom wa sabaqana cheikhu mu ne sëriñ bi nag moo ñu fa jiitu wa wajat naaw yaktubu maa nasu biñ ñëwee ñu fekk ko mu ngi bind lii lan la wax alhamdulillah wasalaamaani ala man laa nabiya baada توفي العلامة العارف بالله عثمان بن أحمد ليلة الأحد الثالثة من ربيع من ربيع الثاني فاتنا علامة جمك جدي عارف بالله با عثمان بن أحمد ميسر عثمان جاي دو إمام أحمد سيكن جاي تي غودي ديماس دي نياتي فان تي atum junneeg ñetti témèr ak juróom benn fukk ak ñeent wa arraxtu lahu bi qawli ma taarixal ko ci sama wax jii may wax ci wëy yii te muy ay wëy urjuusa yoo xam ne allah tawriya yu rafet a ngi ci biir bukaau shamsin fihi maatal qarmu usmaanuna al bahrul xidamu رزقه زيادة وحسنا رب البرايا بالأسامي الحسنى فعمره المبارك الميمون أصاب أرضي وابل مقرون بكاء شمس jooyug jant bi ta shamsu bi kat moom mooy baay bu kaaw bi mooy jooy yi mu jooy loolu mooy maanaam zahir bi dégg nga de ak itam nga adat ko tawriya bi jox la mille trois cent soixante quatre muy bukaawu shamsin fii nag ci atum bukaawu shamsin maata la génne àdduna alxarmu garmi ju màgg ja usmaanu naa sunu usmaan mi albaxrul xidam mu koy géeji xaayaan alfax mu tey ku màgg razaqahu yal na ko wërsëgal rabbul baraaya dégg fail jango ziyadatan wa husna yal na ko rabbul baraya wërsëgal ziyadatan ndollant wa husna lillazina ahsanu husna wa ziyada yi dégg nga razaqahu rabbul baraya husna wa ziyada rek dégg nga waaye woy waa tax maanaa husna mooy duxulul janna ziyada mooy ru'yatul baari yal na ko yàlla may mu texe tàbbi aljanna ak ndollant ga ndollant tàgg tàbbi mooy gis yàlla yàlla ko yàlla may loolu bil asaami alxusna ci barke tur yu rafet yi ci barke asmaul alxusna fa umruhu lmubaarakul maymuunu mu ne kaa leen nag ma wax leen ñaata at la dund moom sëñ Ousmane Ndiaye fa umruhu dundam ga almubaaraku gu barke ga almaymuunu ga gën barke ndax ñaari mbir bu fekkente ne dañoo bokk lu ñuy firi buñ leen tëralee rek benn bi taakid lay doon al al mubaaraku ak al maymun ñoo bokk firi léegi nag al yumnu wal baraka kon fa umruhu al mubarak al maymun dundam gu barkeel ga gën a barke wala fa umruhu al mubarak al maymun dundam ga barkeel lool te nga de mhm. mubtada la de mubtada la ñu ngay xaar xabar ja mhm. xabar ja jumla ji la mhm. waaye nag jeexitalu jumla ja moom lañ ci soxla asaaba ardi dal na sama suuf si waabilu muy trente-neuf maqruunun joo xam ne dañ koo lënkale waame wu lënkaloo waame woo xam ne gaawul a day taw di tawaat di taw di dotti di dotti rek ba dégg yépp fees mhm. dégg de mhm. loolu mooy dundug sëñ Ousmane Yaay waabilun maxruum mhm. wasalaam nee na bi ñu ñëwee lum gaa gaaw gaaw bi ñu jógee ci xabru bi bi ñuy laata egg ci kër gi ci kaw lax bàyyi jiitu na leen ba jël kayit ba dal di bind lii dal di koy taarixal marsiyal ko bi ñëwee mu jox leen kayit fala majtamaa bam dajee annaasu nit ña أعادوا خطبا يدل دي بامتوات خطبة دي كده ديفال أيضا في التعزية والمآثر دي جالة دي وقع أي جيغتا وكان أول من تكلم الخليفة الحاج محمد منك نجك وقات موي سونو مام خليفة نيس رضي الله عنه ثم الحاج محمد زينب سنو مام الحاج محمد زينب واخ ثم الشيخ مولانا الشيخ إبراهيم واخ ولم أسمع من الخطب إلا بعض ما قال الشيخ mu ne waaye man nag teeluwuma ci xutba yooyule mhm. lu dul lenn ci li sëriñ bi wax lenn ci li Baay wax mhm. wa huwa annahu qaala mhm. te mooy ne Baay wax na ne innahu maa wajada musibatan illaa wajada min allahi xaatiran qablaha illaa musibatu usman mu ne Baay wax na ne moom amul benn musiba bu koy dikkal moom Baay natt buy wàcc ci moom lu dul nattu baa wàcc rek dina am signe mhm. bu jóge ci yàlla mhm. bu ko tegtal ne am na luy ñëw mu mhm. waajal ko ba des dégg nga demuk sëñ Ousmane loolu moom dafa ñëw rek ne jalañ di koy bett dégg loolu bokk na ci libaay Baye wax ca euh, bañ ñëwaatee ci kër gi summa tazakkara baada zalik gannaaw gi nag mu fàttaliku ne annahu raa qabla wafatihi bi naxwi salaasati ashhurin mu fàttaliku ne moom Maulana Cheikh Ibrahim géntoon na lu jëkk génn àdduna ak suñ Ousmane Ndiaye ci ñetti weer annahu huwa walxaaju muhammad wa naasun maahum mustagiluuna fi tajhizi walidihim alxaaji abdullah li daf mu fàttaliku ne moom Baye géntoon na gént gu yéeme mu gént ne mook maam xalifa ñu ngi soxlawoo di waajal maam alxaaji abdullahi di ko سور جنگ فعلم ان هذه الرؤيا دلت على وفاه سيد عثمان جاي مقام نكون تاوي لي جنت غوغو موي تكتالي جن ادنا سيدنا عثمان جاي رضي الله عنه وقال ايضا مو واخ موم باي ان الولي الكامل ولي ومت له نسخ داي ام اي فوتوكوبي يوري وانه من نك سيدنا عثمان جاي نك هو موم نسخه فوتوكوبي لمن امام على جابر mu ne sëñ Ousmane Ndiaye ab photocopie la ci imam Alaaji Abdullah xoolal ma wax juréy ji rek ah Cheikh bouka li kéemaan la sëñ bi wax moo yéeme sëñ bi wa qaala innahu laa yaalamu min allahi wala min arrasuli wala min alcheikh tijaani illa maa yaalamu assayidu Ousmane moom baay mu ne itam xamut ci yàlla ak ci yonent bi ak ci Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu lu dul li ci sëñ Ousmane Ndiaye xam maanaam lépp lu mu xam ci yàlla mbaa mu xam ko ci yonent bi mbaa moo xam ko ci Cheikh Ahmad Tidiane sëñ Ousmane Ndiaye xam na ko ci yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmad Tidiane xam nga lii rëy na di sëñ sahaada bii dafa rëy wa kam min musaafirin saafara min quturin ila quturin li ziyaarati waliyin walam yazur mislahu dégg nga mm-hmm. mu ne bëri na nag aji tukki joo xam ne tukki na jóge ci ab gox mm-hmm. jëm ci beneen mm-hmm. ngir ziyaara ji aw waliyu te ziyaarewul ku mel ni sëñ Ousmane Ba qultu Seydil Haadi nag daal di def taaliq ne wa maa zannuka bi cheikh yi kon nag waaw loo ma looy jort nag ci sëriñam nag kon ah, bu dee moom taalibi bi moo mel nii waaw kon sëriñam nu mu toll nag moom <laughs> waaw <laughs>

yazkuruna allah fa xasanu mhm. mhm. mu ne ndéem jàppandi na mhm. bu ma demee bay sukuraat nañu indi ay góor yoo xam ne borom baat yu riir lañu ñuy tudd yàlla loolu day lu rafet la bëgg naa loolu bu ma ko mënee am wa kadalika inda tashyici janazati ni ki noonu bu ñuy gunge sama janaza na ay borom baat yu foor tuddu yàlla gunge sama janaza wa indal qabr fa sama qabru nañu sikkar bu baax al idxaali lu jëkk ñumay duggal dugal ci bir qabru bi yaqrauna al amdah al muhammadiyya al busiriyya ñi jàng tag yi nga xamne tag yonent yàlla muhammad la yi ko imam al busairi khususan al hamziyya minha rawante na nag hamziya falamma raa cheikhu dalika bi sëriñ bi gisee wasiya boobu mhm. amara talaamisatahu talaamisatan la digal ay taalibe leylata sulaasa yi ca guddik talaata ga mhm. an yadhabu ila qabrihi mhm. wa yunshiduha ayil hamziya mu ne taalibe nañ dem ca qabru sëñ Ousmane Ndiaye ba ñu jàng fa hamziya fa anshaduha inda rasihi ñu jàll jàng hamziya ba ca boppam ba دينغا دي وهذا ما يسر الله لي من جمع خبر هذا سيدي الكريم المبارك سيدي الهادي نينا لي لما يالا جابون دلال شي ما داجالي كو خبارو سانغ بو تيد بو بيلي موي عثمان جاي رضي الله عنه نرجو من الله تبارك وتعالى ونساله ونساله ببركه شيخنا ان يعطينا جميع مطالبنا الدنيويه والاخرويه ñu ngi jor ñu ngi jortu di yaakaar ci yàlla tabaraka wa taala te di ko ñaan ci barke sunu sëriñ Mawlana Cheikh al Islam alhaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu jox ñu mbooleem sunuy càkkutéef yu àdduna ak yu àlaxira wa an yuazima xaddana min hada cheikhi ñuy ñaan yàlla yal na yàlla dén nga réel sunu cër ci sëriñ bi bi jaayihi ci barkeb sëriñ bi indallahi tabaraka wa taala summa qaala Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu بعد وفاة المرحوم عثمان بن أحمد رضي الله عنه الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أفضل الرجال وبعد قناقي فقد وقفت على وصية العلامة العارف بالله سيدي عثمان بن أحمد التجاني تخوناكي ci كان bi nga xam ne borom xam-xam bu bëri ba بن أحمد te xam yàlla di Seydi Ousmane bun Ahmad Tijaani المتوفى في ليلة الأحد الثالثة من ربيع الثاني كيغا قمنا فات نانكو ci guddik dimanche di ñetti fan ci rabiu thani am 1364 bi madinati kawlax rahimahullah wa radiya anhu yal na ko yàlla yërëm te gërëm ko wa akrama mathwaahu yal na yàlla teral saxuwaayam ba wa rabba lahu awlaadahu yal na ko yàlla yaral ay doomam wa bassa fihim ilmahu wa sirrahu yal na yàlla yulli ci doomam yi xam-xamam bi ak mbóotam mi wa imaanahu ak ngëm yàllaam nga wa mahabbatahu ak cofeelam nga ca yàlla wa tawxidahu ak wéetal gam doon wéetal yàlla wa islaamahu ak islaamam ba bi jaahi shafiil baraya waaw ñaan googu nag yéen dugg ngeen ci biir ñun ñii sax duggaale nañ ci wallahu yuinuna ala adaai tilka almasuliyati alkubra dégg nga yal nañu yàlla dimbale ci ñu joxe responsabilité bu mag boobu mooy tafwid bi mu def moom sëñ Ousmane Ndiaye mbiram yëpp ci bàyyi di nga ko gis léegi ci ginnaaw si amin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaam ibrahima ibn haaji abdullah atijani nasul wasiya almazkurati yaxu wasiya biñ tudd mu ngi nii wa qabla wafatihi radiallahu anhu kataba almarhum Ousmane Ndiaye hadihi alwasiyata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 bun habibullahi taala bunu mm-hmm. siddiq at tijaani mm-hmm. ndeysaan indi na aw askanam mm-hmm. xam nga bu ñu delluwaatee ci jayla njaay jooju ñu doon waxtaane ci jolof da ngay gis ne sëñ Ousmane Njaay ñoom ko leen dàqaate dañuy dugg ci jayla yooyu ci ci njaayeenu alburi googu ca la ñu bokk Ousmane bun Ahmad maam Ahmad Seck Njaay bàyyam mooy maam Balla Xure ba la xorojo njaay moo tax ñu arabal ko ne habibullahi ibnu siddiq dégg nga abou bacrin attijani qala taala kutiba alaykum ida xadara ahadakum almawtu in taraka xayran alwasiyatu farataaleef na ci yéen ndéem am na waajoo xam ne mu ngi séentu wuy ji boroomam mu xam ne dana bàyyi alal mhm. li ñu farataal ci moom mooy alwasiit mhm. mu def ndénkaane leeral gannaawam mhm. la mu am ci ay bor mu wax ko la nga xam ne moo ko moom mu wax ko lam ca moomut mu wax ko waaye lam ca mayee nga xam ne ca sulus ba la mu daal di koy wax kon loolu eh, mooy sunna saalihina yi ne Abdourahman ibnu Awf da daan bind wasiyaam ren ba déwén xottiwaale càngaayam bu déwénee mu daal di beesalaat wasiya bi saraxe càngaay loolu nee nañ gudd fan la xottil sa bopp sa càngaay day guddal fan wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi maa xaqu imri'in muslimin lahu shay'un ma yuusi bihi yabiitu leylatayni illaa wasiyatuhu maktubatun mu ne bokk na ci àqi cam soo xam ne ab jullit la bu amee doo loo xam ne war na koo dénkaane muy fanaan ñaari guddi te defut wa siyaam ba mhm. bindu ko teg mhm. bépp jullit boo xam ne mhm. am na lu mu war a dénkaane warta tëdd ñaari guddi te bindut wasiya ba bu ko deful rek bu gannaawam liggéey moo ko def hada wa aqidati allati hmm? Hmm? waaw laa yaxiqu waaw لا يحق ولا ما يحق ما يحق ولا ما حق لامرئ مسلم واو موغو واو آه، دا نيو سيدا نص حديث بري ويلكم هذا وعقيدتي التي أسأل الله تعالى أن ألقاه مجيت مسلم ده حديث بي مجيت صحيح مسلم واو جنجة هذا وعقيدتي التي أسأل الله تعالى من عقيدة بصح مو مدانيل سما عقيدة بيغا خمن موم لا نيان يالا أن ألقاه بها ما دجي تيك يالا هي شهادتي أن لا إله إلا الله سيدي جماعة سيدنا أمول بن بور بني جامو تيك دقنا ريالا الأحد في الذات الواحد في الأسماء والصفات خلال نم دي جيالا ري أحدية موم كذاتهم لكو دف واحدية نك كأسماءهم ياك صفاته لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وافعاله دينغا اه اه باي دي لولو دون جانغالي مو نينتي نون لاكو دان ترتيبي دي ذات صفه اسم فعل هو الاول والاخر والظاهر والباطن باتاي hmm? ليس كمثله شيء دار ملوت ثبتت الاكوان بحكمته déggal mm-hmm. mu ne nekkitéef yi sax nañu mm-hmm. di lu nekk ci xereñug yàlla mm-hmm. ba ñu naan nekkitéef yaa ngi nii mooy mbindeef yi waaye wa muxiyat bi ahadiyati zaatihi ñu raaf leen ci kenn jëmmam ahadiyatu bu defee te jëlli rek kawnu bi yëpp dañuy raaf dara du taxawate ci kanam waaye nag xikmatu xikmatul uluhiya bu feeñee rek mu daal di saxal dégg nga maam mu ngay wax almaxu wal isbaat yamxu llahu maa yasha wa yusabbit wa awjada sayida al wujud wa alama shuhud mu amal ki nga xam ne mooy sangu mbindeef bi di xamtuy seede ji sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa jaalahu mu def ko majla zaatihi feeñu waayu jëmmam ji moom yenent bi ومظهر صفاته وأسمائه ميفيني وايو ملو يالا يك أي ترم وجعل شيخنا خاتم الأولياء سنسرين بيغا قمنا موي قتم الأولياء سيدنا أحمد بن محمد التجاني الحسني شيخ سيد أحمد التجاني رضي الله عنه الواسطة موي أبدي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخلق moo diggale diggante yeneen bi mm-hmm. ak bindi mm-hmm. bi bi xaysu laa yatalaqa ahadun minhum mm-hmm. ba nga xam ne déet kenn ci ñoom di aw chey an lëf faidan luy bëbbee min al xaq bàyyi ko ci péyib yàlla bi wujudan aw madadan ak am wala am tëbb illaa bi waasitatihi ndare ci ak diggaleem amul lenn loo xam ne mend mindeef dana ko jële ci yàlla muy ak am mba am gannaaw ak am ludul ne lolo mu ngi amé ci diggaleeg cheikhana ahmad tijaani radiallahu anhu min al azali ila al abad xamne xam ba faw rek ci ru cheikh cheikhana ahmad tidiane cheikh boucar xolal uslub bi mu beugé ni xolal ni mu indé serigne bi وجعل في fi kulli zamanin لهذا الختم yaciishu alxalqu bi dilli wujudihi wa yabqa bi imdaadihi mu def nag ci bépp jamono ab feeñuwaay bu ñeel xatmu bii di cheikh Sidi Ahmed Tidiane jamono bu ne dana am mazharul xatmu feeñuwaayu cheikhu Tidiane yaciishul xalqu bi dilli wujudi bindeef yi dañuy dund ci keruk amuk xatmu boobu wa yabqa bi imdaadihi bindeef yi di des ci tëbbu zillu boobu wa mimman jaalahu llahu fi dalika al maqaam bokk na nag ci ñi yàlla def ci maqaamu moomu wa axallahu tilka sahwat mu daal di koy wàccee ca kaw tund woowa ala salalim ca gën jaakoo ji escalier cheikhana al imam sunu sëriñ ba di njiit la wal malaadal humaam di wéeruwaay way jàmbaar ja kan sayidana sun sang ustaazana sunu sëriñ bi ñu jàngal wasilat naa di sunu kerkeraan jëm ilallaay jëm ci yàlla kan la al cheikh alhaaji ibrahim ibnu alhaaji abdullah attijaani radiallahu anhu wa qad baayaatuhu radiallahu anhu ala alkitaabi wa sunna jaayante naa ak moom man sëriñ Ousmane Ndiaye ci téere yàlla bi ak sunna su yonentu yàlla muhammad wa jacaltuhu qudwatan wa xujjatan inda rabbi def naa ko muy royukaay def ko muy sama lay fayal sama digg sama borom man qallada aliman laqiya allaha saliman walahu tasarrufu alkamilu alshamilu fi jamici umuri fi hayati wa baada mamati ñeexal nako ko ak soppax ndiku gu mat gu làmb ci sama mboolee mi mbir ci sama dund ak sama faatu moom moom itam xamoon na ne xamoon na ne moo mooy dem sëriñ bi de sëñ wa awlaadi jamian taxta nazarihi samay doom yëpp ñu ngi ci ron xool ronu xoolam ronu sàmmam rek dégg nga muraqabam la ci jublu yuqri'uhum alqur'ana wal ilma alsharciya moo leen di jàngal alquran mu xamal leen xam-xamu sharia wa yurabbihim التربية المحمدية التجانية الأحمدية نلين يار تربية بوي كوجوك يونت يالا محمد بوي كوجوك شيخنا أحمد تجان رضي الله عنه wa yuzawijuhum wa yuzawiju zukraanahum ña di ay doom yu góor na leen tànnal ay soxna wa yaxtaaru li inaasihim na tànnal seen doom yu jigéen ya aaliman góor goo xam ne boroom xam-xam la warian di ku sàmm tijaaniyan di ab tijaan sunniyan di koo xam ne ku tënku ci sunna la wa in kaana abdan xabashiyan nag donte sax jàmbu dëkk ca Éthiopie la yaa ngi dégg waaye bu fekkente ne nekk na rek mhm. aaliman mhm. warian mhm. tijjaaniyan sunniyan ñeent ci góor gum daje rek sëriñ bi na may góor gu mel noonu sama doom yu jigéen yaakaar naa ne boo xoolee itam njabootam ji dëgg-dëgg bàyyi wuyal na wasiya kenn ku ne ci ñoom radiallahu anhu wal qalamiyu mu ne lay ko ju xalimba ga yaani al maxtuut lañ ca bind ci mbindum loxo mhm. min kutubi ci samay téere mhm. yutraku lil awlaadi mhm. maata naw bil qiraati sama téere yi nga xam ne nag mbindum loxo la maxtuutaat yi nañ ko bàyyil sama doom yi mu nekk wax fu ci ñoom mais waqfu bi nag dafa am ajal mooy feek ñu ngi itte woo njàng waaye buñ demee ba itteetuñ ko rek léegi nekkatul waqfu ci ñoom waaye alhamdulilah loolu du dañ ci yéen incha allah wal matbaiyu minha mu ne lay ko jug mool ci moom nag lañ ci mool muy alkutubul matbua yu baaxu def na ko jaay wa yuura suñu def ko ci miraas bi wa kullu man tasarraytu biha jëpp jigéen joo xam ne taarawoon naa ko walam talit te ak man doom fa mu dabbaratun moom mu dabbara la mooy bés bu ma faatoo rek gore na qultu haada وانا في الصحه موني لي نك واخنا كو دا فك ماغي وير فنگ مان سي عثمان جاي نيكول ني داما فيبر دي تشاليت ولا لين مي داما وير فنگ واي داما دوخال سونو ري وان ميت في قرى الباديه خولال تيغين جوري جيلي بودي موني بودي داما فاتو تي دكي باديه يي نك فا احملو الى الشيخ نانيو ما ينو اندي ما تي سيرين بي نعم. فذلك ارواح min takallufil maji mu ne loolu moo gën a noppale ci sëriñ bi di toggoo ak dikk bi maanaa bu dee maa nga faatoo ci njaayeen kàdd mbaa kër ma kànj dégg nga de xoolal adab boobu rek ah xam nga ne kooku de du mere naan sama sëriñ damaa deele jaale wu xam nga am na taalibe yuy gedd seen sëriñ ndax sëriñ bi ñëwul jaale si wala sëriñ bi ñëwul sama ngént moom bakkanam bi la wax ne bu ma fi yàlla jëlee te fekk dañ ma yàlla mu ma jël ci dëkki àll yi nit ki dégg nga maam njaayeen kàddu wala kër makkaanji fam daan ne mhm. bu dee foofa la faatoo mhm. bu ñu ko tàggee bàyyi nañ ko yenu ba indil ko bàyyi mhm. mais bëggut moom mu faatu ñu naan ko Ousmane Ndiaye faatu na bàyyi jóge fii di dem ba njaayeen kàdd wala muy dem ba kër ma makkaanji xoolal ma ëddëb boobu hmm? moo tax euh, kalima bi ay am yu bëree ay duruus yu bëree ngi ci biir ak ay ibar wa axtaaru لغسل لغسل من يختار الشيخ الشيخ رضي الله عنه mu ne maa ngi tànnal naa ci sang bi képp ku ma sëriñ bi tànnal maanaam ñi may sang ñi ma sëriñ bi tànnal rek la xoolal bi mu faatoo bàyyi ñeenti shérif la boole ñoo ko sang nit ku ñu laalu ci xoolal li bu tànnaloon boppam mais nee na li ma sëriñ bi tànnal xoolal ba ku sëriñ bi dee tànnal ay deretu yonent yàlla muhammad na ko booleel ñoom ñoo ko sang xoolal li mhm. waaye ci nga xam ne sëriñ bi sëriñ bu mat la su mhm, mhm. ko bàyyee sa bopp rek mu defar la wa yusalli alayya imaman xoolal li encore xoolal lii encore li mu yéeme sëriñ bi na ma jullee xoolal maam xalifa nga ca jotaay ba waaye ne ba bàyyi ne na ko maam kalifa jullee maam xalifa ne damaa am ngànt man damay tiim bàyyi na jubal leen sàpp yi jullee ko bi loolu rëy na ها ويصلي علي الشيخ إماما ويدخلني في قبري نمدق الجقبر وإن كان رجال صيتون يذكرون الله فحسن وأمي أي غور يو قمني borom baat yu neex lañ tey baar yu foor nañu tudd yàlla loolu rafet na wa kadalika inda tashyi'i janazati bu ñuy gunge sama janaza wa inda al qabri بني ما يدخل في قبره بي قبل الإدخال لجك بني ما يتابل في بير قبره بي. يقرأون الأمداح المحمدية البوصيرية نجانغ تجين أنت على محمد يا كوجك بوصيري متالف إمام البصري بردة ولا همزة خصوصا الهمزة تمنا سرتنك همزة يوم والكنانيش التي تحوي الأسرار العالية من كان ناشيغا قمنا làq nañu ay mbóot yu kowe in mittu qabla istixqaaqil awlaadi iyaaha bu fekkente ne deena génn na àdduna lu jëkk doom yi di ko yeyoo yu daxiruha cheikhu lahum na leen ko sëriñ bi dencal xatta yastaxiquha ba yeyoo ko wa awlaadi sama doom yi qiraatuhum seenum njàng muhimmatun lu itteel la indi fi man seenum njàng lu ma amal solola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 la dégg na ko ci liñ wax ci moom maa shiddati xirsi naasi alal xayaati ak nit ñi ni mu tare seenu xër ci dund niñ bëgg a dund niñ bañ a dee mais kere ñëpp bëggoon nañoo dee bi loolu amee nag ba lépp dal amara cheikhu alxalifat alxaaji mouhamad bi salaati alayh mu ne ca la mawlaana cheikh al islam alhaaj ibrahim ñe ci joxe cëram ak jox xorma kilifaam mu ne maam xalifa aca doxal jullee ko fa qaala inni mutayammimun maam xalifa ne ko damaa am ngant man damay tiim fa amara cheikhu bi tasfiyati sufuuf bàyyi ne jubal leen sàppe yi fii am na lu yéeme ci sëñ Ousmane Ndiaye ci intimaas bu mu def ci baay ndax wax nañ ne bi faydu bi njëkkee tàkk ca lew na ca gàmmu ga bi bàyyi zikkaree ba ñëpp xaal ku daanu rek dañu lay jël yóbbu la ci maam Khalifa mu tuuli sa bopp mais sëñ Ousmane Ndiaye bi mu daanoo ci kanaaroon tànki bàyyi ñu bëgg koo yóbbu bàyyi dafa jël tànkam dëgg ci tànk sëñ Ousmane Ndiaye mu ne kii moom kenn du ko yóbbu sama taalibe xoolal dëgg googu mu amoon ca njaal benn mbir ma yàlla mayaat na ko tawfiq ah. bàyyi ci boppam moo ko jullee te ngàntu lu rëy waroon naa am ba bàyyi bañ koo jullee ndax maam xalifa ngi teew te bu maam xalifa amutoon ngànt rek ak lu mu am cër ci baay am cër ci baay maam xalifa koy jullee waaye gis nga yàlla bàyyi la ko mbooleen ci léppam wa qaala inna man lam yaxfad duaa yaqulu allahumma axfir lahu warhamhu bàyyi mu ne ku mokkalul ñaan gi nag na nga wax allahumma axfir lahu summa sharaa fi salaati mhm. wa salla bina mhm. mu daal di tàmbali ca julli néew ga mhm. daal di jiite wala maa tamati salaatu bi julli gi matee wajat naa sayaaratayni muhayyatayni lana ñu fekk ñaari oto yu ñu waajal fa xamal naahu ñu daal di koy yenu nag ñu daal koy yenu maanaam te ja gi bañ koo dugal ci oto yi وصارت الناس تزدحم عليه غاية الازدحام نجينا دراج رجلو دي بوخانت كموم دايوب بوخانت فلما رأى الشيخ ما وقع عليه من الازدحام وخاف على الناس أمرهم بجعله في السيارة بسرين بمولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه جيسي لقو تراج رجلو مراجل نك دنگ بوت نين قمبا نين ديكي با نيو la digle ne mhm. kon nañ ko dugal ci oto bi mhm. wa kaadati nnaasu mhm. an laa tajcalahu fiha li shiddati xirsihim ala alxayri waaye nit ñi xawuñu ko dugal ci oto bi ngir xër guñu xër ci aw yiw ñoom ñu ngi bëggoon rek di awante tàdd gi diggante dégg kawlax ba madina walakin jaaluuhu fiha imtisaalan li amri cheikh mu ne waaye nag ngir jëfe ndigali sëriñ bi muy Maulana Cheikh Ibrahim mm-hmm. ci lañ ko jël mu dugal ko ci biir oto bi mm-hmm. wa rakibtu maahu ana mm-hmm. man Seydil Haadi ma ma duggaale ak moom ca biir oto ba wa baadun min annaas ak lenn ci nit ñi ñun ñu dugg ci biir oto bi nga xam ne ci lañ dugal sëñ Ousmane Ndiaye wa cheikhu rakiba fi sayaarati l uxra mu ne Maulana Cheikh Ibrahim moom radiyallahu anhu ngi dégg nga dugg ci beneen oto mhm. fa sir naa nam shi ruwaydan ruwaydan mhm. ñuy da oto bi nag ñu di ko dawal ndànk ndànk mhm. qadra seyril mutarajjiliina dayob doxuk ñiy dox ak tànk maanaam ñu suuraale ñiy dox ak tànk nga xam ne oto bi ak ñoom ñooy ànd ila madina ñu jëm Medina Baay wannaasu tasdaximu alayna برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان